activité wu bi nag mooy dañoo am fii benn exploitation minière depuis 2016 bi ñu ñëwee nag meloon nañ ni tan gis médd wër nañ askan wi yëpp ñetti communes yi nga xamante ni ñooy commune Baba Garage mooy commune euh, lambaay mooy commune Gawane bi ñu wëree euh, askan yooyu yëpp fexe nañoo jaay seen projet seen projet bi lu ñu ci jaayoon mooy lépp lu ñu leen toog teg ci loraange dinañ ko fexee saafara lépp loo xamante ni jumtukaay la te ngeen yellool ko dinañ ko dinañ leen ko dàmpe ndax li ñuy jël ci yéen dafa doon loo xamante ni dayoo bi dafa dafa jéggi dayoo mais loolu nag regret bi nga xamante ni moom la ñuy am wala boog njàqare gi nga xamante ni moom la ñuy am mooy loolu dañ ko respecté wul loolu respecté wuñ ko parce que seen ay intérêt xëy na la ñu jiital ci li ñuy exploité waaye nag ma leen di fàttali ñoom ni leen askan wi nga xamante ni ñoom la ñu demoon fekk ji y a de cela trois ans muy 2016 askan woowu noonu dispersion bi amoon ci ñoom wala xàjjaloo gi amoon ci ñoom moom la ñu jël tege ko fole boole seen ay doole boole seen ay force boole seen ay xalaat pour xeex li nga xamante ni mooy injustice bi am ci mine bi. injustice boobu nag ni ñu koy xeexe balaa mooy ñëw ci injustice bi dinaa wax ni ñu koy xeexe commencé nañu ay conférence de presse woo nañ leen li jiitu loolu ci waxtaan ak ñoom. ñu toog ci seen ruq lànk léegi nag comme dañoo lànk ku xamul buur dee na di nga xam buur saay na moo tax nag ñu ñëw devant l'opinion nationale et internationale pour wane li nga xamante ni mooy xew fii ci phosphate bi ñuy wax phosphate bi gàdd bisik mu mhm. dañuy exploiter xeer wu ñuy wax phosphate te ku wax xeer wu ñuy wax phosphate xam nga ni exploitation minière ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci code de la code de l'environnement sukkandiku ci code minier sukkandiku ci code des collectivités territoriales xam ngeen ni yéen bi ngeen traversé euh, miiru miiru phosphate bi gis ngeen ni fële rek lañu ci jëm ci tali bi kese la ñu ay garab donc gis ngeen fii seen clôture yi boo waree mine bi lu jugee ci tali bi yëpp seen clôture yi yàqu na boo xam ne dara askan wi nga xamante ne ñu ngi leen di teg euh, ay danger loolu rek jar na xeex ba dee donc pour respecter la code de l'environnement donc moo taxoon ñu ñëw nii dañu marche beneen bi ci topp mooy bu environnement bi jeexee. parce que environnement bi suñu ciy wax suñu xol day jeex ndax village bi mel ni kër kër Ibra Xoyaan ñu koy wax ba dëkk boobu boo fa demee dañ ne la code minier bi daf ñoo wax ni ñu li nga xamante ni mooy les agglomérations dafa war a nekk au moins à 500 mètres de l' exploitation mais malheureusement diggante kër Ibra Xoyaan ak mine bi matul sax 100 mais loolu jaaduwul ku nekk xam na ni code minier daf ñoo wax ni ci Sénégal fépp foo xamante ni dañ fay exploiter mine am na entreprise ba lu mu warloo ak askan wi boo dee xool am na ñetti fonds yoo xamante ni dañ ko répartir fonds yooyu nga xamante ni dañ koy jëlee ci recette mini les vingt pour cent ñu dugal ko ci keesu état wu Sénégal ñëpp bokk ci ñu koy déposer caisse de dépôt et de consignation ñëpp bokk ci bokkut bi nga xamante ni mooy fonds minier ñu koy déposer pour euh, le service minier sénégalais ñu ñu ko. beneen fon bi nga xamante ni daf ñoo soxal dëgg-dëgg muy 0,5 pour cent du recette annuelle bi nga du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise mu war a jëm si ñu. war ñoo tabaxal école war ñoo may ndox mu sell war a sàmm suñu environnement boobu fond tamit dañoo gis ni dañ koo bafoué xëy na dañ koy lekk ci seen biir. boo liiree protocole d'accord yi boo liiree protocole d'accord yi nga xamante ni dañ koo waxoon man maa ngi koy défier mooy damay défier directement di ko interpeller directement di interpeller aussi l'État du Sénégal parce que le directeur général Manar Ba moom s'il sa permet de dire que li mu diggee woon ak askan wi yëpp. respecté ko respecté na ko non je regrette mais c'est pas vrai loolu du dëgg. loolu du dëgg parce que boo liiree seen protocole yi dinaa ko ci benn exemple ana daara moderne bi mu diggoon waa Daaru Xuddoos ana piste de production yi mu diggoon euh, waa waa Waalo ak waa Kër Ibra Xoyat ana ana ana ana ana ana bu ñu fi toogee di ko lim foofu la ñuy yem donc ni ñu dégradé environnement bi ni ñu tegee suñu ay mbokk yoo xamante ni dañuy liggéey ci biir. ba nii may waxee yéen ñi tey on est le 22 mars seen salaire février jotaguñ ko donc xam nga ni loolu kuy liggéeyloo nit di liggéeyloo borom kër xam nga ni loolu metti na ñi ci biir rek ñi leen ñu xor ñooñu la muy suñu frère yi nga xamante ni jël nañ leen dugal leen ci biir donc loolu rek jar na xeex ba dee. gis nga bii nag foofu lañ mënoon a yem ak loi bi voilà on est très loyal même marché bii nee nii. mooy fi ñu mujjee di négocier ak ñoom parce que lii jàpp nañu négociation la leneen li ci des mooy benn camion bu ñu jugee ci lii dinañ waxtaan ci suñu biir benn camion dootu fi jëlati di génne naan dangay ngay exporter le fii daal moom kenn ku ne war naa jàpp ni mooy chef de village boppam ndax ay yëf yi yëf yi ñëpp la bu baaxee sunu yëf la bu bonee sunu yëf la kon dañ cee war a taxaw sunu lépp jag ndax lii ñun dañoo nangu sunuy suuf. li nu woon li nu waroon di terloo suñ ter suñ teraanga lan lan foqati ci sunuy loxo te tugun dara sunu loxo kon nag yàlla na ñu teg dara suñu loxo ndegam dañ ko foqati léegi dëgg la mi eh, yëf yi du du du suufu ah, ah, ah, kii suufu état la. su ñëpp ko bokk waaye nag ñun ñi nga xëy ñoo ko daa bay sunuy maam ñoo ko daa béy ñu ñëw di ko béy di ci dundee ren jii am na ñoo xëy si ne amuñu amuñu sax luñ dundee ndax ndax ñàkk ay ay tool kon dafa doon yoon ñu may ñu aafiya may ñu li ñu bëgg liggéey daal nañ ko def mu ci bu ñu bëggee jàmm. àll bi su fekkente ne léegi guerre bi la sax boo si duggoon di taxante gen kii ah ooye foore yi bu ñu ñëwee dañu lay jàpp ci guerre bi ngay taxan dong muy lu metti lool si suñu xol yi di lu metti lool loo xam ne sii loo xam ne si lu war a lii ci la bokk ndax ba mu fi nekkulee dañu daan am suñu mat bay jot ñu am suñu bisa bay jot ñu am suñuy gerte am suñu dugub am suñu lépp tey lépp tënku na ba nga xam si léegi mënatuñ si am leen noo ngi nii ni toj jojooral miin bi li mu nu yóbbee ñun wax dëgg fa yàlla ñun xamuñu ko yool si dolli ñun suñuy jeune la ñu am ndaxte borom kër yi tey soo demee père de famille yi boo demee tey koo xam ne si bay nga si ba nawet wàcc yaa nga xëy boobi sa parlaa boobu soo dikkee yaa nga tëdd sa soudeur ba toog di waxtaan ba añi jot nga dem nga añi loolu arrangé wu ndax njabootam nga ca école bay jàng te mënul si ñoom dara mënuñ sa njaboot googee dara mbay la nu wóoloo woon daan si am di leen dimbali tey si tey jël nañu tool yëpp. yor sa doole yoon yii nga xam si fatt nañu leen élèves yi jóge foofa di jàng si ku nekk xam na ne xale moom mooy avenir bi kër Ibra Xoyaan xëy na sax ñoom dox nañu leen sar waaye lu ñu gën a métti si ñoom ci la ndax gis nga poseer bi lu daw si seen kaw lal ya lay dem doom ji luur liir bu fa judd man nga fa jëlee feebar asma wala leneen te gis nga poseer bi ni mu def te daan du ñu leen lu mat fukki fukki meer muy lu nu metti ba sa kanamu yàlla ndax jullit lu muy bëgg rek naka bëggale moroom dox na pour xeex doxunu pour xuloo doxunu pour leen lii nuy dox si jàmm ak salaam la nu ko teg moom la nu bëgg mu am si sunu àq ak suñu yelleef moom la ñuy jooy moom la nu bëgg tamit ñu defal nu ba ba nga xam si jàmm salaam rek moom moo fiy su ko su boobaa yat du jóg naaka yat du jóg fetal du sox jaasi du jóg jàmma ni te nu bëgg mën nañu ko nag ñu ko